sëñ tuubaa moom l'islam la fi nekkal sëñ Touba mooy l'islam tool bii nga xam ni mooy toolub l'islam yàlla jël yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu doon jëwriñ ji sëriñ Touba moo ko doon ci moom moo ko bindi moo ni lil Moustapha nawaytuma yu jaddidu sunnatuhu xarra wa inni ahmadu kon lépp lu mu def jullit yi ñoo tax murit nag ku ci génn sa bopp yaa ci génn waaye muridullaay la ñuy wax ku nam jëm ci yàlla te jàpp naa ni jullit yëpp na mu dem ci yàlla kon lii ñu fi def defuñu ko ngir tariixa defuñu ko ngir groupe defuñu ko ngir kenn lislaama tax sëñ bi def ko ndaxte sëriñ bi lislaam a ko ñor ndax moom mooy lislaam sëñ Touba mooy lislaam sëñ Touba mooy sunna ndax moo ko doon kon ku fa ñëw ku ne xam nga li nga xam ni mooy mission sëriñ Touba te it bi mu fi nekkee nekk feek maam yi ñi fiy ñëw ñëpp xamoon nañu li ko li ko ñor dëgg mooy ñëpp doon benn na ko yàlla waxee na jullit yi doon benn wastasimu bi abdillahi jami'an wala tafarrahu ci la serigne touba xey ci le gont ba biñ ko noppé gis ñiko fi wutu di ay wa kërëm ba tay ba ci serigne muntaha mi ci lolu lañu yoy le julit yépp ñepp doon ben ndax li xew ndamul islam la yërëm ñu motax ne jam ñaajo lañ ko narona téro wajalon nañ ko ba dakar gep daayira yépp murid yépp dam ñaajo lañ narona and ak mom ba fi mu gis xat-xat yeeg autoroute beeg ñiy liggéey yeeg ñi ami yitte mu bari yërmande ndax moom léppam yërmande la lii ñu ko defal fii sax bu sañoon day raam ndànk rek dem ca kër ga ndax bëggul benn fitna bëggul kenn sonn waaye lii dey loo xam ni mënut a ñàkk looloo tax ñu def ko kii feetu ñëpp la yéen a ko gis ñëpp ñëw nañ fa kër diine bu nekk ñëw na fa nañu ko tàmbale woon dañ koy ànd ak ñoom ba sëñ bi ñëw ak ba ba bi dem